jaar fànn fu alors gis nañu waa jeunes yu bëree bëri dañu nekk ci réseau yi di attaqué képp koo xamante ni rek danga pare ci jëmmal ko hmm. euh, Sidy nga nekk artiste boo xam ne ñëpp dañu lay toog pourquoi nga nangu euh, porté li nga xamante moom moo di combat bi ak est-ce que yaa ngi xaar attaque yi nga xamante ni euh, peut-être naan naan na ci fekk la sama question bu mujj mooy dina génn tuuti débat bi dañ la gis nga sol benn tenue tenue bu marron mu am polémique bu ci am bëree bëri nag di poser question euh, tenue bi nga sol lan moo tax nga sol ko ak période bi 10 yi nga xamante ni sa père sa papa ba tax jox na ko euh, waaw jërëjëf jërëjëf moom ñett la joxe ah waaw première bi mooy jeunes yi seen polémique yi affaire yi loolu nag du ma ci mën a tontu ndax dégguma ko. pour ma tontu ci damay bàyyi ba dégg jeunes yi ñu wax ko ma doog ci mën a tontu loolu dégguma ko dama ci mën a tontu kon boobu dama ci avancé deuxièmement bi mooy euh, tëdd bi nga xam ne moom nga gis barki démb ma sol ko c'est normal parce que Sidy Diop boo demee ci mbooloo di jouer il faut nga sol benn affaire boo xam ni boo dugg si dinañ xam ni kii di ñëw moom mooy bi te loolu tamit seen la ma sol ko mu fën te tout à normal man maa taxaw ci kaw seen il faut que ñëpp wax ci. Euh, bu ko keneen xolam kenn du ci wax Sidi Diop moo ko sol yéeg si seen c'est tout à fait normal nit wax ci troisièmement bi mooy geste bi nga xam ni moom la suma frère suma xarit suma grand suma père suma nijaay Makhtar Diop suba teel def démb defal ko waal yi man je dirais que ni Makhtar defatina ni na dafa fekk ni démb caméra yi dañu fa bari rek mu feeñ mais je crois que Makhtar ñi toog man xam nañ ni li muy joxe ci ay millions ci suuf moo ëpp fuuf li muy joxe muy feeñ def na lu rafet defal na ko ku baax defal na ko rakkam xam na bis ndax moom Matar moo njëkk a yóbbu je pense waa les Zénith xam na bis xam na lu ci organisation frais d'hôtel billet d'avion te Olof Ndiaye nee na ku la ñëwee du la dolli kon daa bëgg rakkam moo tax mu dolli ko samedi nag ma koy ñaanal moom wàññi balaa ba ndam lu sedd guy merci je vous remercie. merci bonsoir, je viens Soubatel Musique et Soubatel euh, euh, Agency pour cette euh, nouvelle collaboration et aussi 22 bêtes pour le choix porté sur Sidizo. j'ai deux questions adressées. On l'a choisi justement parce qu'on a vu en lui l'énergie, la passion et le travail également.

Euh, vers Sididio. Les attentes, c'est justement une collaboration fructive, une collaboration gagnant-gagnant, c'est-à-dire que espère dans cette collaboration que on va pouvoir nous euh, apporter à le souffle ou en tout cas l'énergie, le complément d'énergie dont il aura besoin euh, dans la suite de sa carrière. Mais également nous, on pourra également, comme on est une jeune structure qui s'installe au Sénégal, Euh, gagner aussi à, euh, à fructifier notre communauté et notre, et euh, notre, portefeuille clientèle. Voilà. À présent, nous allons prendre juste trois questions pour les journalistes qui sont sur la place. comme ça, le représentant de 22 va essayer de répondre aux questions que vous avez posées. Du contrat, est-ce que c'est un contrat renouvelable Les clauses, euh, j'aimerais vraiment savoir euh, euh, plus de détails par rapport au contrat. Si c'est 3 mois, ou c'est renouvelable Merci beaucoup. Oui, merci. Euh, donc la durée du contrat est de six mois et le contrat est renouvelable. One second. Going on there. Okay. Cool. Okay guys, one clear. One more. Give your hand. Okay, thank you. Merci à Sidi, merci à Bendomet. Je vous rappelle qu'il y a une petite collation, donc euh, à la fin, vous pouvez rester pour euh, profiter un peu de l'espace et de ce qu'il y a à manger et à boire. Merci à vous. Okay. Next. Alors, nous sommes en train de dresser la table. Donc, dans un instant,